mais lii man ma lii man maa daaneel sama bopp kenn daaneelu ma man la léegi nag ngeen sukkandiku ci yooyu daan xaar leen ma yeb aadama ku ma yeb ma téegal sa ndey xam nga ni ma fa ma taxawoon du ma fa jóg sokol yi waru laa bett ku ma yeb ma téegal sa ndey ko appuyé ci loolu pour pour fonto ma man ma doxaan sa ndey barki alxuraan karim xanaa xamu leen aadama yéen léegi nag dégg naa dem nga ci Cheikh Ahmed di wut wallu ah dégg naa ko benn vidéo ñu yónnee ma mu ne waaw Adamo bu subaa dinaa def live dinaa ñëwaat ci moom Cheikh Ahmed boo ñëwaatee ci man di wax ay Farba Ngom ak keneen ak keneen sax jéggal naa la loolu duma la ko tontu du ma ak yow nekkatuma man ak yow maanaam yow dama lay calculer par zéro duma la may vie duma la may nit di la topp di wax dama lay calculer par zéro ki may toj cottu ndeyam a ngi nii ki may tas famem kii la te tey dama koy baal moom tamit dinaa ko jéggal mais nag déglu leen moom bu baax sénégalais yi nga xamante si nii yéen yéenay wax naan Sokono stress nanu ko jéggal léegi dafa am yu ma bëgg ñu wane ñu xool. nan déglu. sa yaay caga la ñu xamuñu ko tey laay kat kattee sa data nday ba maam Ndiaye sa bopp maama ngay reetaan maam Ndiaye ngay ree ay maam ngay yow la ilaha illallah wooy mami Cobra man lay dugg mami wooy ci mami ci man ngay dugg tey laay xëddee sa lëfal nday bi talal ko ci tali bi tey laay toj sa nunu la nday xam nga luy nuna ram yow mami xamoo xamoo nuna nuna rax tey laay toj sa nu nara nday nu nara tey laay lëfal nday ba nga xam ni tooñ nga ma nag la ilaha illallah tooñ nga dof man boo ma tooñee xoolal ñuy dugg di la ñaanal duma leen faale duma leen lijjanti damay ubbi sa la nday matin midi soir tey laa lay tëggal ay tabala sobo sobo soxna saaga yi la fi saaga mami Cobra ak yaayam dañu ñëw ci yeneen yi mami Cobra ak yaayam nii la ko soo ko toroxale xaaral ma ñëw léegi dañu ñëw ci mami Cobra la fii kaa mami Cobra dañu ñëwaat ba tey ci mami Cobra déglul. de asu Jóob sadata nday sadata nday sadata nday sadata nday sadata nday sadata nday sadata nday sadata sa la sa juróom ñaari perte balance data nday asu Jóob dégg yaayu mami Cobra la taf mooy asu Jóob léegi may leen ma ma ñëw dañu ñëw ci maam Ndiaye Savon. parce que man bëgguma kuy yàq diine ji maam Ndiaye danga ngaa jug ngir sabote diine ji barki di moo Ndiaye lañ ma woo jox ma say preuve sa sëy bi katt na diggul la ndeyam bu yàgg li tax sa sëy xam naa ko maaka bëggul woon a wax li tax. sa jëkkër kat sa diggu la nday fase la maam njaay maa ko yëg maa xam waaye maa noppi woon comme nag yaay saboote màggalu sëñ fàllu galas baayu mbeen baayu ba sa baara maami danag seex dinaa toj sa cotu nday toj sa lëfal nday jël ndayu Espagne dugal ko ci sa data yaay Mariama Traoré. maam Ndiaye Savon ngi noonu loolu la ko doon wax léegi dañuy ñëw ci Dior Dieye te youtube gis sa papa sa baay sa lu jeey caga bu katt lëfal tuunu tata ndeyam la ancien mandikat mooy sa baay sa lu jeey moo woyoon Sénégal atum naataange sa caapanday naataange Sénégal gi fekkewu ko sa baay sa lu jeey mandee ko rey ak day ci mbeddu bi di naa yi yow nga ubbi sa lëfal nday topp tiktok beeg facebook bi di ko waa léegi yéen ñiy ñaanal soko njekk damay laaj ndax doomu aadama yi maanaam ñii ñoo gën yaayu soko wala yaayu soko leen gën man loolu laa bëgg a xam soko ko ñii mu toroxal nii damay laaj laajte ndax yaa ngi ci laay bi soko di ma dégg damay laajte ndax yaay soko leen gën dinaa la may nag liberté mais digg ma dégg bu baax xoolal ay vocal la ma yónnee di jooy soko vocal yu bëri xaaral ma wal leen soko non stress soko soko lu ma lu ma lu ma mus a ci àdduna bi la ma vocal xoolal ay vocalu ay ay vocalu 4 minutes dama koo yërëm sax barki Serigne Babacar si dama ko yërëm xaaral ma woon leen xool leen xoolal 2 minutes xoolal 2 minutes 2 minutes xoolal 2 minutes 3 minutes xoolal dama koo yërëm sax xoolal. barki Serigne Babacar si Malick bul bàyyi nag bul bàyyi de topp rek. topp leen loo yërëm sax. Eh, xaaral arrière bul yam rek mission barki salaatul faatiha fii ba deuxième partie xoolal ci côté bu nekk nag. voilà l'homme de tous les temps l'homme qui règle les situations des Sénégalais l'homme qui fait le buzz l'homme qui fait. xoolal ay vocalu 4 minutes la may yónnee 3 minutes. sama yaay damaa tere mënatu baa dugg. mi ngi xaw a dee déglul ma wax la nag Soko sa papay jiitle bi yor naa video bu muy kattee benn xale sa papay jiitle maanaam ki donn sa yaay xam nga sa yaay danu koo donn sa yaay sa yaay roqee si dañu koo donn maanaam sa papa daa génn àdduna sarlo sàmbeen takk sa yaay am na ñaari jabar am na vidéo yu muy kattanteeg ay xale vidéo yoo xam ne day kekkantoog ay xale te sa yaay yëgu ko maa ngi ñëw ci yooyu duma ci ñëw léegi de dama lay jox exemple ñi ma yore yor naa ojo yoo xamante si nii sa famille maam la nekk ak ñi bokkal sa nday sa famille weenu yaay fa la nekkee ci boppam xam nga yow sa nijaay rek laa génnee des na lu bëri mais nag bala maa génnaat wax damay xaar ndax da nga réagir ci lii maanaam tabara tabara jóob mais yaayu caba faw nga tontu ko maam njaay safoo la gën faatu law la gën nanu déglu kàddu yi nga xamante si nii maam Ndiaye Savon yëkkati ko jëmale ko ci man Adamo baal ko rek. kii doomu Fatou Lawbe la mu ne naa jégal soko déglu leen ñee la gën. baal ko yow tamit Adamo àddina solo soko li mu def nii ñëpp rek. du sama kaay kase de li mu tooñ ñëpp tooñ gi mu tooñ do jaayu ñëpp loolu noonu rek bu dalee si kawam du baax te ku dul xalaat nag bis lu la neex mën nga koo def baal ko àddina amul solo baal ko àddina amul solo yaa ma dégg ko rek baal ko rek mu jeex benn yoon barke nabi Mustafa àddina amul solo li nit mën a fajal boppam bëri na mais bàyyi ko rek mu sedd parce que Soko wax naa ko fi benn jour waaye xam naa def maa gëmul woon nee naa ko gis nga boo xam sama yaay mu demal naa ne di ko tooñ sama yaay bu tooñ te nit ku set la waxam naa ko ko fi nee naa ko sama yaay du tooñ te nit ku set la te ku ko a tooñ gis nga ko bàyyi jàmbur. mais xamul woon ni koy wax pour moom daa yaakaar ne rek sama yaay mooy sama yaay wala Fatou Laobé mooy Fatou Laobé mais nee woon naa ko bàyyil tool léegi nag bàyyi ko nga baal ko bàyyi ko rek xanaan Soko sax baal ko yow kii Adama ko waaye Adama mu. doomu Fatou Laobé la kii. Adama baal mu sedd rek ngir yàlla ak yonent bi dégg nga. doomu Fatou Laobé. yow yow yow borom xol bu rafet nga da dugg ci dara ba pare waaye. da ngay dugg ci dara ba pare waaye yow sax yaay yaay yërëm nit ki baal mu sedd soo ko jarut a topp de baal mu sedd rek dégg nga nekk ci jàmm merci. mu def loolu nit da ngay da ngay nit kenn ko toppoon sa saada moom. bilaay walaay barke Serigne Fallou Mbacke mu la ko nëbb de soo ko dama ko yërëm bilaay walaay wal kitaab ma naan amoo soo ko def. maam Ndiaye Savon mais maam Ndiaye Savon mooy wax. mu def loolu nit da ngay da ngay nit kenn ko toppoon sa saada moom. billaay wallaay barke Serigne Fallou Mbacke dama a ko nëbb de soo ko dama ko yërëm billaay wallaay wal kitaab man naa amoo soo ko def na ma ne wax na ma lu nekk mais xaw ma la la mais dama am ci moom yërmande mais mbokku léegi kuy rey say noon noonu say mbokk koy njëkk a jeex barke Seydina Muhammad soo ma moom dafa sikk dafa mais baal ko li maam Ndiaye maa ngi ziar yow sa xol baax nga rafet xol rek barke Serigne Babacar si mais lim la fi def kenn defalu ko lim la fi def kenn defula ko lim la def nii def ko sa yaay def la ko kenn defuloo ko sa xol rafet ngeen yërëm ko yéen ñëpp mais juru yërëm doomu raam la man sama yaay moo woo léegi léegi nii rek ma ne ok amul problème sama yaay moo ne ko baax na dinaa ko jéggal amul problème mais yow lim. dégg sa yaay lu mu wax dégg nga sa yaay dégg sa yaay lu mu wax te nekk jullit. maam Ndiaye Savon moo lay ñaanal lii ak sama yaay kaddu yi mu wax. mais Tabara jóob moom bu bàyyee bu bàyyiwul eh ay mor dina bari Tabara Diop yaayu jaba bu bàyyiwul eh, laa ilaha illallah xaaral ma ñamal leen tuuti yii dama dencoon sax te tegaguma ko. li mu ko dafa doy waar. yaayu soxna génnee facture eh, yaayu soxna seytaane bu mag góor du muy seytaane Lamine Ndiaye moomu. waa taxal sama sama sama yaay dafa bon. yow doo nit ku bon. naa la ko baal mais kii li mu wax lépp mën naa tas famille bi naa la jéggal mais li ma denc lépp ci biir famille bi soo ko dama lay avertir de li ma yor bari na de. laa ilaha sa papa gis nga ni ko fi ma ko jaar sa nijaay ji bokk ak sa yaay ndey ak baay du man la suñ xaadim rek mu takk sa yaay saagakat la ku bon la léegi damay ñëw maanaam papa yi soxo ni ma ko naxee ci wàllum social xam naa ne nit ku yiw la nijaayam xam naa ne nit ku yiw la jàngkatu alxuraan la bëgg na jàkka ji bëgg na social bëgg na dimbali nit ñi te mi ngi ci jàkka ji te sonn na léegi xaaral ñu ñëw ci audio yi ma ko naxee ci jàkka ji ñu doog a continuer naa la baal sa ko xaaral ma ñëw rek. déglu leen. xaadim la sëñ xaadim Espagne. waaw salaamaaleykum imam si maa ngi delluwaat di ziar sëñ xaadim la sëñ xaadim Espagne sëñ xaadim Espagne waaw am na contentement bu baax ci li nga wax ne àndoo ci soko di ko def mu nekk lu bon waaw bu soobee yàlla man moom ci diine lag laay jox. waaw jaamu yàlla jéeg yooyu yëpp dégg naa la ci nga imam bu mag nga social bi incha allah rabbi dinañ ci jàpp waaw social bi nan lay demee rek incha allah ñu jàpp ci def ci jàkka ci bu xaalis bu bëree bëree ak millions yu bëri incha allah bi soo ko moom loo wax ci moom des na Malick Diop loo wax ci moom des na bon na lool. Malick loo wax ci moom des na bon na lool. na Malick loo wax ci moom des na bon na lool. ba oui ma bala maa tegaat bala maa tegaat nijaay ji bala maa teg vocalu nijaay ji da ngeen di déglu sama bon na lool ji bon na lool ji déglu leen rek déglu leen. waaw salaamaaleykum imam si. maa ngi delluwaat di ziar sëñ xaadim la sëñ xaadim Espagne sëñ xaadim Espagne waaw am na contentement bu baax ci li nga wax ni àndoo ci soko di ko def mu nekk lu bon waaw bu soobee yàlla man moom ci diine rek laay jox waaw jaamu yàlla jéeg yooyu yëpp dégg naa la ci nga imam bu mag nga social bi incha allah rabbi dinañ ci jàpp waaw social bi nan lay demee rek incha allah ñu jàpp ci def ci jàkka ci bu baax xaalis bu bëree bëree ak millions yu bëri incha allah rabbi soko moom loo wax ci moom des na Malick Diop loo wax ci moom des na bon na na lool bon na lool yow mii nijaayam ci bon na lool. déglu ji. macha allah macha allah amul benn problème waaw bu ko defee euh, wax dëgg yàlla euh, comme euh, ubbil nga ubbi nga bu soob dinaa la booleeg ñoo xam ne da ngay jëflante ñoom direct ci wàllu social bi man man ñaari gis nga da nga may ma laal xaalis di ma téye xaalis du ma du ma xam loolu la ma xamee fii incha allah. yi nga xam ne ñu ngi jëflante ñoom direct bu ko defee nga góorgóorlu jàpp ci wàllu yàlla euh, gën a góorgóorlu rek yow euh, wax dëgg yàlla maa ngi lay door a xàmmee nag sax bu baax <laughs> ndax joxoo ma sa tur <laughs> waaye loolu du problème xam nga man ñun ñëpp yéen ñëpp yéen laa njaboote dama ni yow dama la mos a dafa am dama la mos a dégg ngay firi alxuraan. macha allah dama la mos a gis nga firi alxuraan man dama yéemu moo tax bu la kenn yàqal dara dama lay ñaan rek sama doom dama lay ñaan bu la kenn yàqal sa wàllu yàlla yàlla ku tuub rek mu jégal la incha allah yàlla ku tuub mu jégal la loolu laa doon wax ci jumaa ji fan yi man aw ma xarit ni nga ma gis nii aw ma xarit aw kenn waaw bu ko defee nag ah. Eh, dégg naa la fii wax dëgg yàlla ngay ngay ngay firi alquran ma sama xol soppeeku bu baax ci yow wax dëgg yàlla léegi dam lay ñaan yow tam dam lay ñaan eh, lu la waay mën a wax lu mu la mën a wax rek bul bu ko topp bu ko topp bu ko topp ci eh, waxu safaan dégg bu defee nag incha allah dinaa la mettre en rapport ak ñoo xamante ni. waaw booy yéen nag ma fekk maa ngi enregistré nag quand même waaw bu ko defee yaa ngi dégg li ma wax waaw bu ko defee nag yow nga gën a góorgóorlu gën a jàpp borom bu ko defee borom bi subhanahu wa taala kii mooy nijaay ji gis nga fi ma jaar ak moom ci social léegi ñii ñi ñii soko di ndamoo yëpp pour ñu koy seedal lu baax woo naa leen ba napp leen ndax ku nekk maa ngi ak sa dossier ku nekk maa ngi sa dossier mais kenn ki kalifon Sall moo ma woo ci appel ñaan ma ne ma xam na ko te xaritam la bu ma ko dund ci détail du ma tudd turam parce que woo na ma nee na moom dootu ci dugg muy Oulimata mi muy tudd ak roq ak ak Ramatulaay si parce que Ramatulaay si dañu ko ëmbal te xam naa ki ko ëmbal waaw Oulimata Oulimata si jëkkëram kilifa la te def ko tere yaayu sa ko léegi nag danuy déglu ba ma woowee Oulimata si li ma ko wax déglu leen bu baax. man la Khadija. kii Thiaba la kii bokkul. xaaral daam seet. Oulimata si laay seet Oulimata. daam ojo bu may seet sama ojo yi bañ baal leen ma rek ma tëj ojo yi tuuti ndax maa wane yenn audio yoo xam ne dafa war a génn damay tëj kii bi ba gis ojo bi daal di teggiwaat sama kii ngir yàlla. ok audio baa ngi nii gis naa ko déglu leen Oulimata mi mu woowoon ci laay fam démb mu naan da koy seedeel lu baax déglu leen li ma ko wax. waaw maa ngi si jàmm alhamdulilah. ça va yow coow li bëgguma la cee dugal bul soo ko bu la woowee di wut ay témoignage bu ci dugg bu ci wax sa yónnee wu ci. billaahi wallaahi taalaahi man sama yoon nekk. bul duggati ci lii bu la woowatee naan la ma ulimate si ñëwal seedeel li nga defoon yow ak Ramatoulaye si bu dee yaa ngi numéro wax ko ko ndax bëgguma dugg moom it ci ay dossier am. bu ma sañoon kaa bi dinaa dugg ci soko ak yaayam ba mu jeexal te duma leen ci boole. ah man de wax dëgg yàlla man sama yoon nekk soo waxee dëgg te yàlla. tax yow lay woon ngay wax ci live looy wax pare naa ci. bu la woowee bañal bu fa duggati. parce que ñu pamti pamti yee ci réseau yi. loolu ku ne ku ne ku ne neex na da lay nax de parce que youtube fu ne ngay dem. te da ngaa war a am jëkkër ami doom. da ngaa def erreur da nga ma waroon woo laaj ma ba pare. yow tam yaa ngi dugal. ah ah dugaluma sa photo de. déedéet. non da ngaa tudd sama tur. dama tudd sa tur mais defuma sa photo. waaw léegi léegi yow pare nga ba ba dootoo dootoo dégg may dugg mu may woo waaw kay bu dee loolu am na rek jeex na man dootuma la waxati du ma a tuddati man dinaa yem ci ñoom te bàyyi la. ramatulaay nag bu ñàkkee jom moom fi ma jëm ak moom du baax. man man xam naa sama man. Ah. man dootoo déggati yow waaw yow yow yow yu bëri yow sa jëkkër tere na la yaayu soko bàyyil ñii bàyyil kii bu ci woote bu ci wax. pare naa ci. waaw. te information bi sax xamul fu mu ko amee. kene ko moom ah. jëkkëram def na ko yaayu soko bàyyi ko du baax maa ngi ko koy wax nii xamul woon sax fu ma ko jëlee damay nit soko moytu ma moytuma dinaa la jéggal nag ngir sama yaay parce que nag soko damay tekki lii wax la benn affaire nga dégg ko benn affaire laa bëgg mu leer sa bopp bi danga nga taf sama jabar ju baax ma tag ko ci farata si yàlla sunnas Muhammad xoolal muy jullit pire nga monter ay vidéo ne sama jabar cagala Sénégal yëpp di ko gis day màcc ay koy mi ngi ni amoore mel ni quoi mel ko kii ma takk ko ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad muy sama jabar di jigéen comme sa yaay yor lëf comme roqee si waaw lëfam nag moo gën a ndaw moo gën a ndaw bu roxee parce que bu koy bu ne macc nga ne moom la loolu bokk na ci ma gën a metti mu ngi nii de moom nga tooñ amore hmm. te la raccontato oggi quella ragazza che aveva pubblicato il video diceva che tu facevi certe cose invece non, non tu mm. è un videomontaggio che si fa con cosa hai da dire ma io lo perdono cioè perché lo perdoni perché che persona è che posta quei video così cioè alla fine sono certi livelli non mi a me quindi la devo perdonare ok vai nee na moom jéggal na la baal na la naa la baal ci xol bu sedd guy ndax xam naa ne ñàkk bopp moo tax ngay def yenn yi doo sax bilaay yaa bon quelle gàcce humiliation hmm? sama yaay woote téléphone sama yaay woote téléphone ne naa la jéggal sama yaay woote téléphone ne naa la baal jéggal la léegi nag damaa bëgg ngeen wol ma maam Ndiaye Savon ci live bi su bëggee coow li jeex maam Ndiaye Savon nee leen ko Adamo ne na dalaa soxla ci live bii woowal leen ma maam Ndiaye Savon rek partager leen ko live bi na gaaw ana maam Ndiaye ana maam Ndiaye Savon na sama xanaa da génn man lay woo jotuma la xool naa la si deret bàyyi gisuma la léegi nag soko dama la jox exemple man duma naa la noq naa la ba nga féete boor te wuy ma li ma denc nii dégloo mu baax la waxu li ma denc li ma denc man li ma denc moo ëpp li ma génnee lu bari dama ko réservé ngir sama yaay sama yaay moom ma woone ma naa la baal ak sénégalais yi dañu laa yërëm pourtant dañoo baax rek mais toroxal nga ku nekk. dégg naa nag dem nga ci Cheikh Ahmed wuti wàllu pour mu jàppale la kooku bu doon live ba suba duma ko tontu Cheikh Ahmed li ma daaneel ci pièce ak moom man la du moom de man maa ko joué maa dem fekk jigéen bu mu wóolu dimbali ko te yàlla tax mu war ma lool day am même journaliste sax dañuy liggéey ñu jox leen ñu jaay leen ay information jaay su jël information yi jox ko keneen bu ko defee ñu des yu loolu day am ci liggéey liggéey boo gis guerre boo gis day am kii xoolal Sonko ñi mu defar ñëpp Ousmane Sonko xoolal ñi mu defar ñëpp ñu bari dañ ko war te ñoom ñëpp ñi Sonko tax ñu jël mairie bi ñii Sonko tax ñu gañe fee ñi Sonko tax ñu liggéey li ñoom ñëpp danoo war Sonko dem feneen jaay lépp dem dem dem trahir Ousmane Sonko complètement day am fépp géewu politique bi dafay am fépp lay am Kalifon Sall ngi nii ma jël la nii ma jël la Kalifon. yaa ngi si jàmm. baa yaa ngi am jàmm. Sénégalais yëpp gis nañ sa diggante ak Soko. la defoon loolu jeex na nee nañ la def si suba bàyyil mu sedd. moom def na ojo mhm. nee na gagné nga ko yaakaar naa ni coow boobu war na mën a ndaat saay. dëgg la. dama bëgg nga tëgg benn combat bu Sénégalais yëpp di xaar. Ahmed Cissé si mën a duulam. depuis keroog toog na ma ne ko lépp lu mu wax ay duul la na génne vidéo wala ojo fu ma waxee génnewul. Mhm. tey yàlla teg na ko nattu. ñëw na def na live mu ne daf ma soxla si live am dew ma live am. Mhm. Sénégalais partagé ma déglu mu ne dafa yor sama lomotif mais daf may sutural <laughs> ma taa live ma saaga ndeyam ma ne ko bul ma suturaal. mu ne jox na ko xawma ma rok su xaw ma lan ak lan. ma ne ko lenn laa bëgg dugal ko si live bi mu yónnee la ko sa whatsapp. bu yoree sama lomotif na Sénégalais yëpp ñëw toog fii nga wane ko en direct ñëpp di gis. woowal leen ma wuy ma sama live la lii woowal leen ma si Ahmed Cissé ci sama live xam nga xam nga la laa bëgg. waaw nee na dañ ko yónnee samay lomotif ak ay audio bëgg ko teg daf may suturaal na teg audio nee ko rek na teg benn audio na la centre benn audio. léegi pour sénégalais xam ne Ahmed Cissé yàlla teg na ko nattu lépp lu mu mës a wax ay duul la tey toog na ba dina duulloo boppam. léegi Cheikh Ahmed Cheikh Ahmed laa bëgg xale yi partagel ma live bi nga ne ko Adamo Bostey Negri moo la soxla parce que Cheikh Ahmed tamit waaw xam nga moom day duul te du génne preuve non xam nga lan la war a bàyyi moom tamit kay toog rek di duul non non non loolu ma ñëw xam nga lu war a bàyyi audio wala vidéo ma ñëw kali ma ñëw li mu gën a war a bàyyi mooy profité ci benn occasion man jigéen wor na ma jël naa ay information yónnee ko ko yoo xam ne man maa ko séq ak ndaw si doon wax ak moom mu enregistré ma yónnee ma ko mais bu bu profité ci loolu tax muy yokk di sosal nit naan naa ñëw ci Farba Ngom xaalis bi mu daan jox Adamo naa ñëw ci Doro Gueye xaalis bi mu daan jox Kali man kenn joxuma dara Farba Ngom sequma moom dara lu may jox sama yu nekkul ci xaalisu ken man gëm naa sama bopp am naa xaalis mais yooyu dootuma ko ci tontu barki Serigne gis naa ko mu def vidéo nag gis naa ko muy laay bëgg ni ñi di ko seetaan déglu leen ma tegal leen noonu lay def de parce que bëgg na page am bi am ay abonné après mu ñëw naan buuri lay jaay ak ay miel déglul ma tegal li wax déglul ma tegal li wax xanaa booy suturaal nit ba nit saaga sanday nga war a mën a partager vidéo yi nga ñëw mu sànni la ko sa whatsapp déglul déglul ma déglul ma tegal sénégalais yi li mu wax man doo ma duulal déglul ma déglul déglul ma tegal sénégalais yi li mu wax déglul dina am kersa dina defaraat boppam mais mu gën a nekk di yàqaat bu subaa incha allah laay jël aadama li ma leen di wax nii jàpp leen ko déglu rek bu suba lay jël Adama teg ko ci raa boo xam ne mu koy neex fa lay jaar mu koy naqari foofu lay jaar. déglu rek Farba Ngom. dégg nga. dama ci junjoon tuuti rek mais bu lay jël suma temps leeral la leen lan laa ci bëgg a wax dix-neuf soo ko dégloo ci vidéo buy jeex dana lan Adama du sama combat dem jublu ci ci ci ñoom Farba Ngom ak yooyu déglu ko rek. képp ku ne fa nga nekk ci àddina. jàppal dix neuf heures heure Sénégal tubaab laa nag su ma ne dix rek amul minute yu teg dix neuf heures zéro minute damay bës bouton bi taal. Adamo nag ñemewut parce que su ma live bi passé nii da ko doon signaler di boole yéen tam da ngeen di takku ba dëgër parce que kilifa yi nekk ci ginnaaw Adamo ñemewuñ ma wax bugguñ ma wax. Adama ko. dégg nga ko lii lay wax pour nit ñi ñëw seetaan ko mu naan diw jox na la xaalis diw sa loxo yaa doon saaga diw mu lay fay man xam nga ne man. c'est-à-dire day duul am na xam nga may def du ma ko tontu man ci détail yooyu. barki Serigne Baba xoolal bu waxee ba bàyyi ma tontu ko taal naan damay def yee naan diw joxu maak diw jox na ma bàyyi leen ma. Adamo Adamo barki Serigne Babacar Si. waaw may ma ma wax la du ko def man dama bëgg nga déglu ma ma wax la. man nga xam xam nga yomb nit toog si tiktokam mënoon naa toog ne aadamoo li ma waxoon ci Momadou aadamoo li nga ma waxoon ci Paate aadamoo li nga ma waxoon ci fekk ay duuli neen la amul sens tey jii bu toogee ne Kaliphone li nga ma waxoon ci Kouramaki wala Kaliphone xanaa lu mu deedee kay li nga nekk ak Kaliphone un ak lu teg lu mu deedee ba kalifon ñibbee kër ga dina la ne Kouramaki kay nangam tàngam na génnee audio mu ngi téléphone am xanaa lu mu deedee bu Kaliphone amoon lu mu wax Waly Seck dina ko mës a wax sax benn jour ne gis nga lu mu la ci Waly na génnee audio du ko génnee du génnee vidéo bu toogee di duul billahi wallahi wa taalaay moom ci boppam xam ne mu ngi duul duuli tooy xet dégguma barki démb mu ne kilifa buy jox saarataa xaalis muy ñëw si yow saarataa